وسيلة في الدنيا وآخرتي سوى الذي ساد من يملي ومن بصفير يا سوى الذي ساد من يملي ومن بصفير يا سوى الذي ساد من يملي ومن بصفير يا الذي سعد من يمضي ومن ياتي asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokk alxadratul malikiya mbokki groupe bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku su nekk ñi ngi lay wàcc sa wàccuwaay di nuyu le président Djibril Faye ak le coordinateur Ahmadou Deme ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo ngi si biir groupe bi ñëpp rek kenn ku si nekk ñi ngi lay nuyu nuyu bu bu ñu tibb si sañu xol di ñaan yàlla yal nañu yàlla gën a sàmm gën ñoo wattu gën ñoo dëgëralal suñuy mbooloo bu baax a baax a baax yal na yàlla gën a dëgëral suñu pas-pas yal nañu yàlla gën a sàmmal suñu pas-pas bu baax incha allah mbokk yi xam naan rek ñu ñëw ak yéen sañu matière wala darsu bi nga xamee si ni waroon ñu ko joxe tey si samedi ji muy matière biñ ñi féetale woon ñu koy tudde at tasawuf incha allahu si lañ fas yéenee ñëw waxtaan si ak mbokk yi si suñu waxtaan si suñu mbind bu jëkk aywa su ko defee mbokk yi xam naa ne li ñu fas yéenee waxtaane tey muy suñu tomb bu jëkk si matière bii ñuy wax at tasawuf ñu fas yéene waxtaane taarifuhu muy xam lan mooy tasawuf ah incha allah dinañ waxtaane tamitam baneen waxtaan la fan la baatab tasawuf jóge muy fan la dottikoo ak fan la cosaanoo ak tamitam am solo koo xamante ne tasawuf am na ko solo yooyu yeneen tomb la incha allah mais tomb bi ñu fas yéene waxtaane tey laal si mooy lan mooy tasawuf mbokk mbokk yi comme niñ ko waxee léegi tasawuf suñu ko don jàngale mbokk yi dañuy wax ni rek bu don dañu koy jàngale lu aji si jëm si suñu rew ñun Senegal dañuy wax ni rek si nit ki rek manes na say jàngale lan moy tasawuf ci ñi ñu xam bu baaxa baax moy ben suñu ko don si jëm dañuy wax ni da tasawuf bu ñu koy misal moy yoon wi nga xamee si ni fondé mo formé euh, Cheikh Omar Fouti yu taal waaye tasawuf mooy yoon wi nga xamante ni moo produire Cheikh Cheikh Alxaaji Malick si tasawuf mbokk yi mooy yoon wi produire Cheikh Ahmadou Bamba tasawuf mooy yoon wi produire mbokk yi Cheikh Abdoulahi Niass su ko defee ak ñeneen i góor yàlla yi ñu xam si réew mi ñëpp it seen cosaan maanaam seen diine mooy diine tasawuf dañuy wax ne Sénégal moom ku fi bëgg a génn diine tasawuf diine dootu fi des ndaxte Sénégal diine tasawuf mooy li nga xamante ni moo dugal diine islam si biir Sénégal ay suuf sufiyanke ñoo ko fi dugal kon yoon woowu di tasawuf mbokk yi kon dafay mel ni mooy yoon wi nga xamante ni mboolem ngënk moo xamante ni nekk na si réew mi ñu koy naw si cër wala si tolluwaay wala si ragal yàlla wala si sàmm wala si nekk koo xamante ni ku yar bakkenam la mbokk yi ñooña ñëpp seen naan waay mooy at tasawuf mooy yoon wi ñu doon dunde doon si dundale diine su ko defee loola lu wér la si histoire Sénégal mbokk yi kon loolu rek dañuy wax ni loolu si gàttal si buñ ko doon jàngale si sañi magi réew dañuy wax ni kon mag ñooña ragal yàlla googu ñu amoon wéetal yàlla googu ñu amoon yar seen bakken googu ñu amoon ba yaroon ko seen bakken ba ñu lu arab ñu say tabbi waye faf lu leunt sax duñ ci tabbi luy nuroog lu sah ba taxoon nga gisoon ci ñoo xamanteni sax luy luy sos bakkar sax duñ ci dem waxantuma la ci jëmi bakkar ñu say dem defana ku jàng si xaaj euh, euh, sidi malik xam nañu demone na bañe ni ka xamee ñun ñepp histoire dem ba aramal ci bopam manam jëfëndiko meew wala so ngir ragal gatt booba ndax musna rur tolop jambu kon koka amana lola ci lënt lay daw kon koka du def bakar bo xamé si ni kon daf kay xam soobu so kon ñi ngi sax ragal lon ci lënt goga rek sax mën na am ak ragal yalla di sa daw bakar sa lola te dañuy wax ni hasanatul abrar sayyatul muharrabin manam gaay yi nga xamé se ni àgg nañ sa yalla si ak ragal yalla gu deggo deggu dañuy wax ni nit ñi soga départ jëm sa yalla yow la nga jappalu rafet ba di ko ñoom loolu la ñuy jàppe bàkkaar ñoom buñ ko defee kon dafay mel ni tolluwaay la ay maratib la ay maratib la yoo xamante ni amaana ka sa toll moom jamono jamu plafonné si ak ragal yàlla la yàlla dafay mel ni moom dina ko yóbbu bu toogoon si nen sax dañu naan nen ba du toj ngir rek yow la ngay def jàpp ka ni sag rafet la sa loola moom day jàpp ni loola bu ko defee lu bon la si moom su ko defee kon loola ñoo ñoom ñooña ñëpp nag si yoon woowu la ñu naande ba macha allah kenn ku ne toll tolluwaay boo xamee suñu mbokk yi suñ ko doon nataal wala suñu duggee si li ñu bëgg jàngale si ay jikko yu rafet si ay jikko yoo xamante ni doon nañ ko jëflante si ragal yàlla da daal di normalement ñii mel nii ndaxte yoon wi ñu sóobu moo jàngale loola te tamitam des na si gisee tamitam ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu tasawuf la woon ndaxte bu ñu xoolee tasawuf taarifu tasawuf xam lan mooy tasawuf buñ la niwul yonente bi sax loola donte baat bi nekk na lu bees mais jëf ji moom nekkul lu bees ndaxte yonente bi sax sam sallallahu alayhi wasallam loolu la ko yàlla yónni te si loolu la doon oote tamitam ta si loolu la ko yàlla tagge tamitam mbokk yi kon lan mooy tasawuf bokk tasawuf buñ ko doon wax mbokk yi dañuy sukkandiku si ay mbind yoo xamee si ni borom xam-xam yu bare bari bind nañ ci bañ siy jëkk jël mooy ku ñu wax alxaadi sayxul islam sakariya al ansaari yu rahimahullahu taala dafa wax ni at tasawufu ilmun tuxrafu bihi aqwaalu aqwaalu taskiyati nufuusi wa tasfiyatu axlaaqi wa tamiru saahiri wal baatini li nayli saadati al abadiya mbokk yi alxaadi sayxul islaam zakariya al ansaari yu rahimahullah moom nan la jàngate ne lan mooy tasawuf si taxarif bi mu ko defal moom nee na tasawuf daal xam-xam la xam-xam la boo xamee si ni nit ki daf say soobu ngir xam yàlla xel mun tonrafu bihi xam-xam boo xamee si nit ki dina sa soobu ngir xamee si nan la war a laabale bakkanam nan la war a sellale bakkanam waaye nan la war a nekk koo xamee ni dafay am jikko ju set wécc joo xamee ni dafay sore bépp jikko boo xamee si ni jikko bu ñuy ŋàññe la jikko la boo xamee si islam daf ka dàq jikko la boo xamee ni yonent bi saa wala borom bi subhanahu wa taala gërëmu ko waaye ànd ak loola tamitam muy nekk koo xamee si ni dafay dundal biiram di dundal biteem ngir ut ak texek ëllëg yowmal xiyaam mu ni kooku nga xamee ni dafay not bakkanam yar bakkenam ba bakkenam du ko tarxiis loo dara si yi nga xamee si ne ay tartaari adduna la du jublu dara tamitam si luy tartaari adduna not bakkanam ba li yëtteel doom aadama yi si adduna yëtteelu ko mbokk yi seexul islaam Sakariya al ansaar yi moom nee na lii mooy tasawuf tasawuf daal kon mooy ki nga xamee si ni moom moo moom bakkenam ba sek suur bakkenam daf koy ñod di jëme ko sa yàlla waaye bakken ba du ko ñod di jëme ko sa adduna mu ni kii mooy mu tasawif mu ni kon tasawuf daal kon mooy boroom jikko joo xamante ni mbokk yi ku tedd la ku rafet jikko ku set jikko ku nekk kon si mbokk yi mboole makaarimul axlaax yépp dañuy gis ne mi ngi ko feese dell te lii mbokk yi buñ ko jëlee tekk si kenn sañu kilifa yi rek jàngat sa di gis ni kon kii yoon wii la incarné woon yoon wi moo moom yoon wi la doon dund tamitam te yonent bi salaasam mbokk yi buñ ko ci tege dañuy gis ni yonent bi kon mutasawif la bu wér donte nak dañuy gis ni baat bi lu bes la waye nak jëf ji besul te lolu buñ demee ci diina du fi jeex du xaj lepp diina non la don ci baat ba bes na waye jëf ji mom besul mbok yi buñ si diina ndax baat bobu di tasawuf fay lu bes mbok yi bas na si jëf si tur waye besul si si jëf ndaxte yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi bu ñu avancé nañ gis ni lépp tasawuf jikko ju tedd la jikko ju rafet la te yonente bi yàlla ngi tàgg si alquran jikko ju tedd jikko ju rafet ba wax ni ka wa innaka la ala xuluqin asim yonent fa salam mbokk yàlla nee na ka day yow yaay borom jikko ju kawe ju tedd joo xamee ni jafe na nit dàpp la si jikko yu tedd yooya te moom itam moom loolu la ootee moom yonent bi saa salama innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dañ ma yónni ngir ma matal tedd ngay jikko yi kon tedd ngay jikko yooyu mbokk bu ñu jàngatee te lu ñu avancé tuuti sañu waxtaan rek lan gis ni kon tasawuf mbokk yi lan mooy tasawuf kon tuuba bu beesee tamitam jëf ja moom beesul te yonente bi sam jëf jikko jooju la jikko woo woon melokaan boobu tamitam la melokaa no woon ndaxte xam na ni bi ñu koy soog a yónni doon na fi fekk laneen loo xamee si nu dul yàlla luñ ko doon ñu doon jaamu laneen lu dul yàlla waaye mu doon wéet da mbok yi wetaay goga bu ñu demee si tasawuf da ngay gis ni daf koy jàngale bu baaxa baax nungo di xalaat si yalla nungo wéet di def ay tasbihat nungo di def ay tahlilat te yent bi sallam mbok yi loolu lu ñu si la motax bu sayri sax dafa wax alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakasan nujaba mu yenen yonent si ak nguneem la tamal bopam ak wetaay tamal bopam ak xalaat si tamal bopam ak yar bakkanam tamal bopam maanaam wan ginnaaw lépp luy mbumbaayal adduna dëgmal lépp loo xamante ni mooy ki bind asamaan ak suuf loolu la digle te boobu nekkagul woon ab yonante nekkagul woon dara kon nag loola mbokk yi bu ñu ko jeexee xool ko dafay fees dell si biir tasawuf mbokk yi mbokk yi mu mel ni kon li ñu wax léegi tasawuf kon loolu lay jàngale waaye tasawuf atum kon mbokk yi li ñu wax ni bu fekkee dafa bees si aw tur moom beesul si jëf ndaxte wax nañ ni yonente bi si lan la yëkka yàlla la ko yàlla yónni ak si lan la oote di wax na ni jikko la doon oote si ñi ñi rafetal ka defar defar jikko yi ba si julli mi ñi yalla sant sax mbokk yi julli lool lay ñew pour traiter ka pour nit ki label biiram mbokk yi nit ki label biiram kon su ko tasawuf kon mel na ni su fekke daf ñu japp ni dafa bes ci awtul waye besul ci si ndax te taxanal la fi ka fi ka teg te liñ jàngale ci tasawuf di nga gis ni sallama kon mu tasawuf la ndax te tasawuf la yenen ba doon jangale lool la tasawuf ñew pour jangale lool muy jikko ju rafet ak label ci biir ba lepp di yalla nga xamé si ni yalla rek rek nga yëg yàlla rek mooy nekk te liy daw si say biir deret te loolu mbokk yi mooy tasawuf moom la di jàngale te yonente bi sallallahu mbokk yi xam nañ ni xellit nag si loola la tegoon si loola tamitam la daan oote bu tasawuf nag yee si aw tur mbokk yi dañuy wax ni loola du lu si lu ñu naan guléet la si diine ndaxte mboolem diine tamit loolo sa nekk bu ñu demee si li nga xamante ne moom mooy feq xam nañ ne xel bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dund mbokk yi amaana atta yaa ngi fa wala nangam waaye nag yàq bi si tur bi nii ni feq muy matière bi ñu wax feq amul woon muy al fiqh kon amul woon si tur bi tawxiidati mbokk yi bi yent bi dund amul won ci tour wi ni ak yenen ak yenen ak yenen yu mel noona ginnaaw yonent bi lañu ko dabaabal outal ko ay tour kon niñu dababalé tasawufati mooy am aw tour comme yépp matière yooyu tamit non la démé waye rek si loola ngay gis kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi limu don jangalé ci lika yalla o yépp yonni ko sa moy tasawuf la don jangalé moy jikko ju rafet jikko ju tedd te bañ na ba wax ni man loolu lan ma yonni ngir ma motali jikko yu tedd yi tasawuf mbokk yi loolu lay jàngale pour laabal nit ki jikkoom ba yar bakkenam ba wan ginnaaw luy puukaree àdduna dëgmal luy ëllëg yawmal qiyaam ak jaamu borom subxanahu wa taala te wéetal ko sellal ko sa jaamu ko su ko defee mbokk yi kon bu beesee siiw tur ni koy feqe ak yeneen ak yeneen i matières yi mel noonu tamitam la tasawuf meel waaye nag kon nit ki mënta nangu tasawuf ni kat dafa nekk loon si amul woon waaye tur bi amu fi woon comme ni feq tamitam tur bi amu fi woon kon boo nangoo ni feq nag matière boobu wér na kon nangul ni matière bii di tasawuf wér na ndaxte la muy jàngale mooy la yeen sasam waxoon ne loolu la ko yàlla yónni su ko defee mbokk yi ñu avancé si waxtaan rek pour bañ a guddal mbokk yi kon tasawuf noonu la ko alxaali sayxul islam moom gisee mbokk yi bu ñu demee si ki nga xameen si ni moom mooy al imaamul junaydu rahimahullahu taala dafa wax ne at tasawufu istixmaalu kulli xuluqin saniyin wa tarku kulli xuluqin daniyin mu ne tasawuf daal Moy jëfëndiko bëpp jikko bo xamé si ni jikko bu kawé la jikko bu tedd la comme niñ ko xélé ci alquran ta mbokk yi yant bi ko yalla yi daf ka tàgg wa innaka la ala xuluqin asim kon jikko ju kawé joju tamitam moy la mu tasawif bi wara lambo làmboo damitam fexena ka xentu xeeñtu mu ni kon tasawuf dal moy jëfëndiko kul khuluqin saniyin bépp jikko bo xamé si ni bu tedd la jikko bo xamé si bu kawé la waaye moom moytandiku te sori bépp jikko boo xamante ne bu suuf la mooy jikko boo xamante ne bu bu ñu ŋàññe la kon mbokk yi mu tasawif bi noonu la war a mel kon si maanaam yëg ni moom day biiram na muy rafete biteem daf kaa war a dàq biteem itam na muy mel biiram itam dàq ka kon si ay jikko yu tedd si ay jikko yoo xamante ni jikko la yun si moom la yàlla tagge yonent ba sallallahu alayhi si rafetal kon loolu mbokk yi mooy tasawuf mbokki buñ démé ci benen borom xam-xam buñ ñu si yenn si mutasawif yi ñu wax ni at tasawufu kulluhu axlaaqun faman zada alayka bil akhlaq zaada alayka bit tasawuf mbokki yi yenn si ay mutasawwif ñu wax ni at tasawuf dal kulluhu axlaaqun lepp tasawuf jikko la lepp tasawuf jikko la wa man saada alayka bil axlaaxi képp ku la gën a dolleeku si ay jikko yu tedd ay jikko yu rafet ay jikko yoo xamee ni yu islaam gërëm la saada alayka bi tasawuf kooku gën na laa xuus si géej ak tasawuf kon ku la gën a rafet jikko gën la kaa teddale comme ni ko yenn sasam waxe woon ni noonu la ko yàlla yónni sa loola ku la gën a tedd ay jikko gën laa nekk mu tasawif mbokk yi kon mu tasawuf mbokk yi lii la la xamee ni mooy li muy entré ne nit ki si jëmmam ba nit ki nekk koo xamante ni mbokk yi ku tedd lay doon comme ni julli ñëwee moom itam dañu entraîné sa loola su ko defee nag comme ni ngay yéege ni nit ki day julli te yàlla xam ne inna salaata tanha anil faxsaa wal munkar kon julli dafay te dindi si nit ki ay ñaaw ñaaw ay ñaaw teef ay bon bon ak yoo xam ne si ne ay jikko yu salte la kon mu tasawif bi tamit tam tasbixaat yi muy def tahlilaat yi muy def taskiraat yi muy def yooyu yëpp a ndekkate daf say nekk di laabal biiram ba dem ba biiram set wécc nga xamante ni yàlla rek lay yëg comme ni ko jullit di defee kon loolu mbokk yi loolu la nit nag di taqoo di taqoo ba mujj gi yëg-yëgam lépp di yàllay kase mbokk yi xam na ni xel la loolu mooy li tasawuf di jàngalee comme ni ñu ko junjee si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamee si ni daana wéet ngir yëg ni kat moom dafa war a jàngat aw nitam li ñu nekk te bokkut ak lu yàlla oote te loola yàlla dem ba yabal ko sa mu nekk ab yonente te boobu nekkul woon ab yonente te daan wéet bu baax a baax a baax ngir laabal biiram sellal biiram nekkit koo xamee si ni ku fees dellal ay ak jikko ak ay jikko yu tedd mbokk rek mooy si li nga xamante ni moom moom la kii di abu xasan azazaliyu moom la wax si tasawuf rahimahullah mu ni at tasawufu tadribu nafsi ala al ubudiya abul xasan azazaliyu moom nee na tasawuf daal mooy entraîner bakken mooy tàggat bakken tàggat ko si ak jaamu yàlla ba bakken ba lépp rek yàlla lay yëg lépp rek yàlla kay saf lépp rek itam yàlla mooy li nga xamante ni moom lay bànneexoo si saa bu jëmee si jaamu yàlla mu ni kon loola mbokk yi mooy tasawuf mooy kon tasawuf daal abul xasan azazali yu moom nee na mooy ki nga xam ne dafay ba bakken di entraîner bakken di entraîner bakken ba bakken ba dara dootu ko ñor dul yàlla dara dootu ko saf lu dul yàlla du bëggati daret nag lu dul fu muy jub lu dul si yàlla kese abul xasan azazali mbokk yi lii la wax ne moom mooy tasawuf su ko defee mbokk yi foofu rek la ñuy yamandi si sañu waxtaan si fi ñu nekkoon si wax lan mooy tasawuf kon muy tomb bu njëkk bi ñu indi si taarifu tasawuf muy xam lan mooy tasawuf ak borom xam-xam yi nan lañ koy jàngatee donte gën naa yaatu loolu su ko defee mbokk yi ñu ngi jéggalu ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu سوى الذي ساده من يمني ومن يصفى رم جامية سوى الذي ساده من يمني ومن يصفى رم جامية سوى الذي ساده من يمني ومن يصفى رم جامية سوى الذي ساده من يمني ومن ياتي